nduru na ko de daal ñoo ngi suñu lamp yi fii ba ñu vidd moom Sonko am na lu ñuy wax ak Adji Sarr am na lu ñuy wax donc dañuy xaar rek des avocats day na xam ne génnee dinañu ñu xam exactement lañ fa wax donc certainement am na loo xamante ne tamit boobu mooy leen am lu ñu jox information boobu mbokk internet bi yéen a mën a am information yooyu wax ne mbokk internet bi gars yi ñu ngi ci boobu ba léegi seen maanaam boobu journaliste yi parce que daf yi ñu leen war a informé ñu ngi ci taxaw boobu ba léegi di xaar génn léegi ñu génn d'un moment à l'autre léegi ñu génn léegi presque une heure loo xamante ne tàmbali na depuis dix heures du matin ba léegi donc gars yi ñu ngi xaar ñu ngi xaar ndax mbir mi moom doxal jot na ñu na mu waaw mooy noonu Adji Sarr Adji Sarr nañu ah, nare bi ñëw ñu ngi koy seen mu ànd ak ay métam mooy sécurité euh, moom la ñuy seen foofu waaw donc mbokk internet yi ñu leen euh, patienté noonu di ñëw noonu di ñëw am seen aji waaw koy seen foofu ci biir Adji Sarr yegg si nañ ah noonu di génn noonu di génn noonu di génn noonu di génn Adji Sarr ngi noonu vêtu tout blanc mu ngi noonu de dugg na ci oto bi Adji Sarr moom dugg na ci oto bi Adji Sarr dugg na ci oto bi si naa jëlal caméra bi ko dem kenn ma waroon a ñëw rek nañ dem tàllal ko ba xam. waaw dugg na ci oto bi. micro yi dafa jaxasoo. Michael Moore, that's the métro waaye nag du taxaw oh putain eh eh waaw nañ daw rek bu putain de merde eh, waaw maître taxawul de taxawul El maître dafa génn ci oto bi rek dem taxawul moom la ñëpp doon xaar pour mu mun ñoo jox quelques détails quelques informations oui Ada waaye waaw pare nañ waaye maître dafa en sonné rek dem ah kon est-ce que du ban côté la kenn xamul kenn xamul de ñu ngi noonu ngeen di seen ah est ñëw rek ñu dem ñoo ngi de est que doo ñëw rek ñu dem pourtant bu ñu xamoon fu mu jaar ñu topp ko de maître ñu woo maître dem na de dem na de ñam fa lañu xool peut-être ñam fa lañu lool daal gaañ xaar na ko bokk internet yi ñu sañoon ngeen am maître El Hadji Diouf ngeen am avocat wu Ndeye Khady Ndiaye waaye daa mel ne ñu jot ay instruction kenn bëggul wax moo taxit ñoom ñëpp a dem léegi nañ jéem a xool naka la ñuy mën a joindre si ñoom xool kan moo ci mun pare pour wax ak leen a dégg xam fu lañu war a jël topp leen ba xam nañ leen gis waaw ara mën nga dugg mën nga dugg léegi ñu dem waaw ñëwal ñëwal ñëwal topp leen ba da nga da nga sori wala ñu génn. waaw d'accord ñu ngi ñëw foofu kon. maître waaw jëlaale pied bi ñu dem ci aada. jël si pied première bi. pied première pied bi. waaw ah. aada mu ñu demaale oto bi ñoom ñu dabaale ko am na bi ñu dem. bi nga njëkk a jot waaw première non wóor na maître daal dem na. waaw maître la def na ko. ah je pense que dem na de. sincèrement gis ana firaaw na. kuy firaaw na Adji Sarr. Adji Sarr moom dem. non Adji Sarr dem na. Ndeye Khady gis nga Thierno yaa yaa yaa ngi laaj sa micro bi moo ngi dem am am micro bi. coupé man non nga yaa ngi laaj damal continuer ok maa ngi nii toog nekk ci ginnaaw tribunal bi yow foo nekkee maa ngi taxaw rëbës rëbës rëbës buntu rëbës dépassé nga rëbës kon ñoo ngi leen di dab ba dafa jël tout droit Médina xam naa corniche bi lay jël rek sûrement ko noonu la jël corniche bi la jël de corniche bi la mën a jël boo génnee mosquée Omarienne kon tout droit corniche bi la jël kay yow foo nekk nii waaw mosquée amarienne bi ngay génnaat jëli corniche bi en attendant ñu jot maître d' accord kër maître xanaa wuri maître ah mu ngi nekk almadi la nekkee ko tey oh, oh, waaw dañ dem kar ko këram rek ah bale bi du mën na bale ah bale ah ok ñoo ngi si mhm. li muy wax du complot. Mhm. lu muy wax lu leer naññ la. Mhm. parce que bu doon ay wax yu ñàkk fayda la mbir mi jeex na bu yàgg. waaye xam nga ni xam nga ni ku xam li muy wax. wax ja leer naññ dana am ñoo xam ne dañuy jéem a def tout pour gàggal ko. looloo yàggal mbir mi. jéem nañ ko gàggal ba sonn. waaye ba wane ne moom li muy wax. Mhm. sos ko. Mhm. du complot. dafa leer naññ. Mhm. te amul lu ciy ragal. kenn du ginnaaw. liñ koy sosal. liñ koy waxal. li ñu attaqué avocat am. di ko wër taxul mu dellu ginnaaw. waaw mais maître maître gis nañ ne gis nañ ne tey Adji Sarr ba muy ñëw. soo xoolee xar kanam gi da ngay gis ci moom confiance gu bari waaw mais lan lan lañ mën a jàpp aji Sarr dafa am ci lu dëgër lu mu téye wala. li mu dëgër ci mu dëgër këcc. mu xam ne mu ngi jàkkaarloo ku nekkoon ca bërëb ba moom bërëb ba. mu kontaanee nii. Mhm. mu mel dafa dafa xiifoon jàkkaarloo. wala bu jaay neex. moo tax mu yàkkamti woon tey mbégte bu rëy. Mhm. bëggoon na jàkkaarloo ak Ndeye Ndiaye. Mhm. jàkkaarloo ak Sonko. Mhm. ndax ku ci nekk si ñoom bu jàkkaarloo yow. dana xam lépp dëgg la te dëgg rek a neex. c'est vrai que gis nañ ne euh, confrontation bi tey yàgg na yàgg na lool comme li nga wax ni xëy na peut-être moom moo waral euh, yàggaay bi mais suite bi tey euh, ak lu jot a génn foofu suite bi tey lan lay lan lay doon. donc suite bi mooy juge bi. Mm-hmm. déglu na Ndeye mm-hmm. mu ngi déglu yeneen nit. mu ngi def ay mu mm-hmm. ngi tempoom tempoom liggéeyam temps mu war a jox. temps bi mu war a jox liggéey bi. léegi nag Adji Sarr nee na yaakaar si ne ñu àtte ko. Sonko nee na yaakaar si ne ñu àtte ko. waaw lu jar ñëw tribunal immobilisé naan nañ dem tribunal. nañ dem. agressé nit ñi mhm. nañ dem saaga El Hadji Diouf mhm. taxaw dema saaga di ñoom man du maag ñoom mhm. band yi taxawaalu di saaga El Hadji Diouf ak di ko sosal lu ne ak naan du wax di génne benn slip man du ma sol sax slip foo lay daanoo man kàlla soo lay sol <laughs> naan këram a ngi toj yow fenkat yii rek Jibril Waar wax na dëgg na Aïssata Tall Sall wax ak ambassade yi nekk à l'étranger ñuy porter plainte contre bandi yooyu nekk ci étranger. Mhm. di fay ay bandi ñuy taal ay kër yu nekk Sénégal. Mhm. ak di feral ay julit ak ay góor. Mhm. ñu nga xam ne dañoo rafet seen seen àddina. réew mi ñu dëkk. mu ngi fee toog def tekki wuñ fi nekk mbalit bitim réew. nekk sàcc yu jaay ay oto. yu jaay drogue. yu jaay ay fen pour yu bëri ci internet. ñooñu. seen ndey mm-hmm. est vrai que bëggoo maître c' est vrai que bëggoo dugg si secret d' instruction mais est ce que Ndeye Khady tey euh, ba nga ba nga gis foofu euh, ñu ko amoon confrontation ak Adji Sarr ba xam ba léegi dafa maintenir position bu mu doon wax. lañ fa wax. Mhm. duma ndax xam nga am na ay information yu génnoon ne euh, euh, Ndeye Khady Ndiaye lu nekk fay nañ ko ko ngir mu changer position. loolu xam ngeen du dëgg. Mhm. loolu waxam la mu kenn benn preuve. loolu la. Mhm. loolu moom mën ngaa naa ne dem ay manipulation la. dafa naan diw dama laaj dama proposé ay millions. Mhm. waaye firnde ana firnde bi. Mhm. xam nga wax yomb na sàcc na ni yomb na. Mhm. waaye foo koy tëggee. nañ bàyyi di wax complot xam nga kan moo mën a wax complot sa waay. attakat bi rek su ma nekkee benn. waaye foo ma sa gisee. kii yaa atte di atte boppam ne lii complot yow yaa sa bopp di <laughs> kon daal prison di ko war a ubbi. Mm-hmm. ku ñu ne yow yaa yaa def lii. nga mm-hmm. taxaw ni complot la. Mm-hmm. duñ tëj kenn de. waaw mais maître ku ku lay nit. Uh-huh. ñu jàpp a complot la. Uh-huh. a complot la. wuy si buur ñu ne complot la. kon daal buñ toppee ñi kon ku defati musiba bu ñu la tollal looyee. yow wala nga ne complot la. maître kan la yoon di fay ku ñu fay weer muy liggéeykat mhm. boo xam ne liggéeyam métier ak xam-xamam mhm. mooy seet complot mhm. seet lu nekk dëgg seet lu nekkul dëgg seet luy fen kooku juge boo koy def waaw léegi yow est-ce que mën nga ma gëmloo ne yow Sonko wala may xadi yow ay juge lañu kan moom mën a wax complot ku lu atekat bi wala àddina bi dafa dafa changé léegi <laughs> waaw kon maître maître maître ma maître maa maa ngi lay dégg bu baax maître. est-ce que est ma koy déggee ngeen di ko waxee. Mm-hmm. di yaatal seen sos yooyu naan dañ ma doon proposé mm-hmm. mm-hmm. mais dañ bëggoon xam dañu bëggoon xam ba xam moom dafa campé ci position boobu ba léegi wala. loolu du ma génn ay man xam naa ni. ragal ragal. Mhm. tax na nit di fen ak mhm. ragal yoon teg la loxo. Mhm. tax nga nit ñi ba naan dañ may comploter. yow kay wujjil sa mbaxana nekkee benn. jaxayri. boo demee ni ma li yëg lii la am ci preuve. kay day ko. seet ko wax dëgg ak ko waxul dëgg. tey ba ngeen ba ngeen euh, defee confrontation bi ak euh, juge bi bon suite bi yow am nga favor euh, favorable na ci benn côté bi wala. dama ni la. Mm-hmm. Uh-huh. waaw. confrontation bi. Uh-huh. dañu ko yàkkati woon kii foon ko. Uh-huh. moo tax Adji Sarr. waaw. reende jir mm-hmm. ah. mm-hmm. gis waa gis nañ ne ba muy ñëw mu ànd ak ah. benn ful bu immense ñëw nuyu ay partenaire am mm-hmm. ni maa ngi nii tey du ma otage kenn nëbbu ma xanaa kay dañu may sécuriser pour dof yi ak rek ñu mais ñi ngay ñi ngay wax gis nañ ne ci réseaux sociaux yi bon am na vidéo yu ñu fa dugal ne euh, ful bu ñëwoon bi di soutenir Adji Sarr dañ leen fay ku ne cinq mille francs mhm. waaye nag comme fenkat yi ñoom foofu côté boobu lañ féetee. Mhm. kooku ne da ngay fen. Mhm. da ngay kàcc doo gor. waaye ñoom bu doon cinq mille franc sax la. luñ a <laughs> moo tax ne dañ maa fay cinq mille franc. xanaa benn waa kër Sonko bu ko neexoon mu fen ni man mii dañoo koy sëñ ndax ñoom dañoo àgg ci manipulation. Mhm. waaye xanaa kon même ñi fay seen i franc bu doon am na. Mhm. xanaa ñooñu xanaa ay xar la ñu ne ñoom seen Sénégal yi. Mhm. ñoom ñoo xam fay ay ñoom ñoo ñu waa kër Sonko. waat ne waat ne nekku tuur. ñoo ñuy laaj ay dañuy cotiser ay centaine de millions. ñoom ñoo am ay millions yoo xam ne mën a tax ñuy fayal nit ñi. joxe na cinq mille franc ku ne. Mm-hmm. ndax da ngay def ay ceeb dajale xaalis. Mm-hmm. yore ay million ñoom mm-hmm. mën nañ ko. aji saar kan lay fay. aji saar parce que am na lu lekk. aji saar bàyyi ba lan la am. aji saar jigéen ba yaa ngi. waaw mais ñoom buñ koy wax aussi dañuy jàpp ne dañuy jàpp ne aji saar am na ñu ne ci ginnaawam. loolu mooy a dëgal. ñoom dañu am logique bu leen leen bu leen leen ñu bëgg Sénégal yi gëm ko. mooy affaire bi complot la.

wala yaa jàmme. Mm-hmm, mm-hmm. man li ma gëm sama position dama koy défendre ah, jàmbaar. Mm-hmm. yàlla ma bindee loolu man ragaluma. kenn du ma ko waxee dama nekk un homme de conviction. 23 juin. ñu ne la des rares députés mu taxoon jël ay tous les députés du PDS da ngay déglu jàll. lu tax ñu def ak l'homme du 23 juin. ah. man du ma ñoom du ñu man. dafa kat da koy woy chaque jour. nee na ku sa bàyyi man sa bàyyi yaa ko mën. ñu ne la yéen a mën duñ ko nangu. ndax ndax ndax ndax ndax tey euh, gis nañ ne sax euh, euh, l'ancien ministre Abdoul Mbaye mu def benn tweet boo xamante ne ne mu ngi ci naan s'en prendre à l'avocat de Adji Sarr c'est nier à cette dernière le droit d'être défendu de mémoire de citoyen c'est la première fois que je note pareil spectacle les limites sont en train d'être dépassées gardons le calme gardons calme et raison donc loolu tey buñ ko gisee gis nañ ne ku mel ne tey Abdoul mbay tey tweet bii mu def c'est un tweet fort. waaw parce que Abdoul Mbaye. Mhm. Abdoul Mbaye. républicain la. Mhm. Abdoul Mbaye doomu Kéba Mbaye la un grand juriste l'un des meilleurs au monde. taw yàlla xanaa jëlee Kéba Mbaye. Mhm. nekkul une fierté nationale ci ci ñun a xam naa étranger bokk ci politique bi. Mhm. ak ay rebelle bëgg a taal Sénégal. Mhm. bëgg li ñu bëggoon. daal mhm. tàkk. ñu bëgg jaarale ko ci ay procès. pour taal Sénégal am na ay. bu dee garde woon. mu wax calme. parce que Abdou Mbaye dafa civilisé. loolu ko man ànd ak man man benn bokk yaakaar. mais ni ku ku xam droit ku yar waaye xale yu réew xale yu yàqu xale yu xamante ak booy bu bambi. ak mhm. booy rebelle. Mhm. ñu ne dañuy taal Sénégal. Mhm. kooku kenn du def Sénégal. Sénégal yeewu leen. yeewu leen. te Sénégal yi ñu yeewu. xam nañ ñii defar tali yi. defar péage yi. defar stade yi. defar BRT yi. defar aéroport yi. defar xam nañ kan la xam nañ El Hadji Diouf mooy la veuve et l'orphelin. Mhm. c' est l' avocat du peuple. Mhm. waaw mosul am ci àddina bi ba ànd bi foo dem. fi mu seet taal kër benn avocat. Mhm. wala fu tribunal bi au avocat ndax am na ku muy défendre. koo xam ne amul doole ndeysaan. jigéen la bu yaayam gaañu papaam amul dara. pour jàppale ku am ku am doole. ku am ay bandi ak ay rekkati nit. ak ay tànk di kër. Mhm. parce que gis nañ ne gis nañ ne ku mel ni ku mel ni Gabriel Kane euh, ñoom. de prendre toutes pour sécuriser les dans ce pays le Sénégal de paix et de dialogue. notre jeunesse ne mérite pas doit être consciente. elle doit être elle doit mhm. doit être engagée. Mhm. pour relever les défis du développement. Mm -hmm. Jeunesse de mon pays. Mm -hmm. Jeunesse brave. Mm -hmm. Jeunesse rencontrant d'énormes difficultés. Mhm. Ne te laisse pas embrigader, manipuler par des vendeurs d'illusion, mhm. des criminels tapis dans mhm. des rebelles et de vrais rebelles qui n'aiment pas le Sénégal, ton pays. Jeunesse de mon pays. Jeunesse fière. jeunesse belle mhm. jeunesse enthousiaste jeunesse formée consciente mhm. ne suit point mhm. les directives et les instructions des bandits des voleurs et des violeurs jeunesse de mon pays sois consciente tu as quand même un pays et un peuple de référence en Afrique référence démocratique référence de civilisation référence républicaine, mhm. n'accepte point jeunesse de mon pays, mhm. d'être parmi ceux-là mhm. qui vont détruire ce pays. Non, construisons ensemble le Sénégal, ce beau pays, pour que vive la République. Maître lan mooy suite bi. suite bi mooy le juge va continuer. juge bi day continuer di enquête. dana woo ñëpp. dana woo Ousmane Sonko. dana woo ñeneen ñi. am na aji saar dina am confrontation mhm. ah loolu la sama gars yi ma ja dégg nag dina am ne incha allah rabi ce peuple là personne ne pourra le terroriser waaw mais maître xam nga am na aussi am na am na lu fi am na lu fi amoon euh, presque am na un an ñu président Macky Sall nee na li fi amoon lu fi amati mhm. lu la bett wala bi jaay nee na lu la bett man la président xamutoon ne Sénégal am na ay reykat yi nit mhm. xamutoon ne Sénégal comme ni ko sëriñ Mountakha Mbacké ndeysaan Mountakha Bachir mhm. sama sëriñ régional li may waxoon mhm. foogoon ni kenn du jóg di rey nit parce que sëriñ bi nee na ku mhm. ko rey dem safara sëñ Mountakha yokk ci ni wut nguur jarul benn bakkan benn bakkan rek non oh, nguur ji dañ mais discours mais discours boobu gisoo ne pour ñëpp la du pour Ousmane Sonko kese waaye daa bàyyi ba Ousmane Sonko ñëw waaw yow bàyyi bàyyiwul yow ba nga ñëw wala ma dem sax wala Abdou Mbaye wala Khalifa Sall wala mhm. Macky Sall mhm. dafa bàyyi ba rek si nit mu ne ko ku rey nit benn rek soo <laughs> fa rek a uh-huh. na ki muy waxal te ragalu ko wax li muy wax lam xalaat uh-huh. ñu bëri kenn uh-huh. waxu mag la ko wax waxu fulaak fayda ne ko benn bakkan benn bakkan rek benn bakkan ku ko jël rek sama rek a jëm maître pour ñu bañ la téye ci ligne bi mu ngi guddi nga nga tënk rek aha aha mhm xam na ci loolu mu ne ko sëriñ bi Karim dafee jaaroon ak Khalifa Sall mu ne ko mën la ba ak prison ñoo ànd ma ne mais sëriñ bi fu ànd xamee léegi sëriñ sëriñ bi dëggul ñu nag ku doon interlocuteur mu ne ko dama ni. Mhm. dama ni dégg nga sëñ bi ne àllu dama ni. digg mhm. ak prison ñu ànd. Mhm. sëñ bi day wax de. a man man de ma dara barke alxuraan. waaye gars yi rappelé Sénégalais yi ñuy ubbi seen bët yi waaye. Sénégal bandi du ko jiite. criminel rek du ko jiite. Sénégal rebelle du ko jiite. Sénégal ah ku tubaab yéen it ah mënoo ko jiite. ah ah ah Sénégal <laughs> Sénégal di ko jiite ko ande rek. dof nag Sénégal yi dafa

<laughs> waaw mais mais mais mais maître maître euh, euh, maître El Hadj Diouf ma maître El Hadj Diouf maître xam nga maître El Hadj xam nga maître El Hadj Diouf maître El ñi ngay wax fan yi am na ay audio yu génn yu ñuy attribué à Mamour Diallo bay wax ne xëy na sax maître El Hadj am na ci audio boo xam ne génnagul audio yooyu noonu lan nga ciy commentaire. mais mais jot nga déglu audio bu bu ñu wax ne Mamour Diallo ak Adji Sarr la. aha mhm. mhm. aha aha mhm. non xam nga ñun dañu bëgg dañu bëgg lu leer ci askan wi waaw moom laa dañu bëgg lu leer. aha aha aha aha waaw. viol lañ ci wax. ndax am na wala amul. waaw. kenn duñu ñu toog coow li coow li viol la. enquêteurs yi day xool dafa viol am na. audio yow boo nee yow audio. ñu diw la. bu demee nga arrêté leen. même day tey tey la ko waxee. ñu nekkul ci yu ñàkk fayra yi. suñu bopp daa fees jël li ñu ay bopp kopp. ñun un imbécile wala un vaurien. du ñëw ñu jéem a orienté vers la. loo xam du intéressé wu ñu. këf suñu yuur gi naar suñu yuur gi. dañoo wax loo ay audio ak ay vidéo xam nga lu ñu bëgg. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. yaa ko laal. wala laaluloo ko. Uh-huh. du ko laal bul ko jege. Uh-huh. yow la ñu raay wala raayuñu la. Uh-huh. yow lañ fëgg wala mm-hmm. fëgguñu la. yooyu mooy débat bi. mais ay audio. comme ni nga gis ay audio. donc daal yow ah, juge bi tey dugul ci loolu détail yooyu ko. juge bi yéen jàpp leen droit. yéen lañ mën a nax. droit bi affaire ci mais xam nga xam xam nga maître aussi maître. escroquerie li si xam nga xam nga c'est vrai que euh, mbir mi yëfu viol la ñu wax mais xam nga bu euh, beneen partie bi jàppee ni complot la. non non bàyyil man ma laaj rek bàyyil bàyyil ma laaj dama waaw déet li ma ci audio bi moom li ma ci dégg euh, loolu dégguma ko ci li nga wax mais dama ne xam nga waaw mais mais mais maître xam nga aussi euh, tey ñun lu ñu tax a jóg mooy loo xam dina leex ci bopp askan wi te te pour mu leex ci bopp askan wi mooy te il faut que yéen ngeen gindiñu par rapport à ça xam nga tey bu ñuy tuumaal ku mel ni Mamour Diallo du nit ku ndaw ñu ne moom moo def audio ak Adji Sarr. mais mais xoolal maa ngi lay bàyyi rek parce que ma man man vraiment ay Mamour Diallo bu ngeen bëggee débat affaire viol la amoon tey. xaw ma affaire audio laaj ba ci affaire viol mais pas affaire audio. waaw vraiment. bu ñu ñàkkee fay dañuy dañoo affaire ay ay affaire audio yoo xam ne bu ñu manipulé ngeen toog si manipulation bi. Mhm. seen affaire la. waaw mais déglu ma ma fulaak fay la. dañoo waxi waxi waxi njogaan. kenn du ma divertir. viol nga ne audio. viol nekk pas viol viol n'est pas <laughs> n'est pas audio. viol. Mhm. loolu mooy audio. <laughs> viol la nga toog ni laaj la ñu ko bu dee ci rewaay. <laughs> est-ce que viol nekk audio. waaw maître. Eh, eh, maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf <laughs> wax na soxlaam de ku benn mais ñu ngi en direct ba léegi ah, ak euh, maître El Hadj Diouf euh, ligne bi euh, dagg na xaw ma coupé na ko mais de toute façon moy information yu yum ñu livré am nañ maître El Hadj Diouf bëggoon nañ am ñeneen ñi mais pour la moment malheureusement amaguñu kenn ñu ngi jaajëfal nag euh, maître El Hadj Diouf ak disponibilité bu mu am ba nangu décroché suñu téléphone parce que metti woon na lool xatoon na trop mais nangul nañu ko ba ñu waxtaan ak moom macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal aussi bépp mbokk internet bu ñu doon seetaan ci heure bii nii guddi na waaye ñu ñu ngi ñu doon xaar donc ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal ñu ñu àndaloon ci liggéey bi yëpp jërëjëf merci beaucoup à la prochaine.